Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de louer des likes, merci de louer des abonnés. Merci également de baisser c'est une commentaire. Un plaisir renouvelé chaque fois, de partager des informations. Bok Sénégalais, fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal, Roura, les Gorgora, les Ninglendi, ñu nekk également ci lalu hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi ah erreur judiciaire gi ñu ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dellu na suñu borom xale leen àjjana fi doo si gars yi te ñu en avance ensemble dans la magie de Baba Show et de Esport TV l'actualité en continu gars actualité ñu fa seen waxtaan yi Pape Alassane Gueye bi nga xam ne gars yi mi ngi gën a jege Villarreal ah donc accord presque conclu selon euh, Révélo loolu yëpp ñu fa seen ci dellu aussi mais également wax ci nga donc clash ou entre guillemets li nga xam mooy donc wax ji nga xam ne qui di Enrique ak Xavi daan nañ koy wax mais aussi leen invité ngeen dem ci Baba Show fekk fekkee donc Andy Diouf nga xamné dal gaay tan yi dafa am lu ko dal ah Andy Diouf am na lu ko dal ah, donc ngeen mun ko fekk léegi ci Baba Show le joueur donc d'origine sénégalaise mi joué pour euh, la France bien évidemment pendant ce temps nak li bokk na ci gaay yi yi nga xamné mom la sol donc saison bi ah, pour sen entraînement et tout donc ah, donc les maillots donc <laughs> du club bavarois di Leroy sol pendant ce temps donc euh, Leao la tabou donc du mois du côté donc de. Euh, Milan hein, du côté de l'AC Milan moom daal lañ tabb Leao mon nekk fa joueur du mois le joueur portugais nga xamné ne club yu Paris Saint-Germain ñu koy top et du côté de Marseille ki nga xamné donc Pierre-Emerick Aubameyang mom lañ table également mon nekk olympien du mois donc momit it lañ ko la tabb le joueur euh, gabonais mi nga xamné ne dafa enchaîné ay buts yu ci li nga xamné donc weer wi ñu daal di euh, génn jëm aussi ci ki nga xamné ne donc Henrique Henrique mom lañ tabb aussi mon nekk le joueur hein, donc di nga xam donc championnat brésilien bi Henrique lañ ko daal di le brésilien bi nga xamné nous rejoindre donc le Real Madrid. Un joueur d'avenir hein, sur les pas donc d'un certain Ronaldo El Fenomeno. Pendant ce temps, Barça a joué a joué moi Paris Saint-Germain plutôt Luck, mais teewul daal ñi nga xam donc Gavi bokk na ci ñi nga xam ne ñëw nañ ndax ki nga donc Luis Enrique euh, donc wax na ci euh, ñaari équipe mais Gavi Mom dafa ne comme que Gavi dafa blessé sax teewul dina ñëw bokk ci li nga xam donc groupe bi maa ngi wax léegi Luis Enrique gars yi dañ ko yow ak Gavi euh, kan moo si gën a identité bu Barcelone mais bien évidemment man mon ne déjà muy style de jeu bi possession mais également trophée yi ma gagné donc man

di gis Xavi nak mom neena na ah, li nga xamne mo jëm ci li euh, Luis Enrique mo ne Luis Enrique aujourd'hui mom ak Guardiola bokku nañ ci ñi nga xamne nak moy mooy entraîneur yoo xam tay bu baax sa donné li mu doon jamono ji ni ñoo am nañ ci walu bu reuy donc je n'ai que du respect pour lui lool daal la daal di tonto ah donc duggu sax yenn détail mais Xavi bi nga xamne aussi neena mom ak Ousmane Dembélé wax nañ après tirage au sort donc bi génn Ligue des champions Paris ak Barça wala a donc ñu ne dañuy joxante rendez-vous donc ci ñaari jongante yi mais neena na jour la boo xam jour bu mu bëgg la bu mu apprécier nak mom Xavi def na lepp pour Dembélé tok du côté du FC Barcelona Barcelone pendant ce temps qui y donc Nico Williams le petit frère d'Iñaki Williams Mon mi nga xam du côté de Bilbao teewul Arsenal mi accéléré pour donner di euh, recruté donc Nico Williams et du côté donc des Reds de Liverpool aussi Al Ittihad n'y ngi insister pour recruter Cameroun Mohamed Salah ñoom dans les 80 millions qui table bi pour daal de euh, l'international égyptien l'un des meilleurs joueurs de l'histoire donc des Reds de Liverpool euh, l'ancien coéquipier de Sadio Mane. et bonne nouvelle pour King euh, qui dit Pape Alassane Gueye selon yéeni donc Relevo donc Villarreal qui Pape Alassane de mon football Gauthier Magic gay nee nañ na mi ngi avancé par par les Alassane gay bi nga xam nak mom day delu Espagne gannaaw ba mu fa jóge won ci buñu ci li wax mais également ñent proposition yo xam wa marché Marseille nañ ko mom ko parce que liñ ko proposé euh, niroowul ak méngoowul ak li donc loolu daal fi mu ne nii ba il va partir librement du côté de Villarreal euh, selon donc les informations du média espagnol gars yi lii moo nekkoon information ñu bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir ah di wax like di abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV et de Baba Show bu baax essayé d'abonné suñu la di jégalu ci retard bi mais temps yi gars yi mais aussi beaucoup leen jox information pour juste jox leen information on se donne rendez-vous tout de suite sur Baba Show